responsable yi nekk Tivaouane dañu mos a parce que yenn saa yi ma déggee ñu naan jubóowuñ sax daf may jaaxal peut-être euh, les gens n'ont pas l'habitude de nous voir ensemble de truc amuñu benn problème amuñu problème nous avons travaillé nous avons travaillé élection yi élection yi passé dañuy liggéey mais daal la mais ñu dem ñu ci bari am ay ndomb tànk ñu dem jot bi xëy na nekku nekku jot bi moo ci amul mais mën nañu population bi yëpp que ñun nous avons nous dañu décidé liggéey ensemble. loolu yëpp pour président Macky Sall parce que en fait Tivaouane ak li fi Macky Sall def li ñu fi Macky Sall li ñuy Macky Sall ji mooy voirie bi parce que voirie boo ko defee population bi yëpp la ko defal assainissement boo ko defee population bi yëpp la ko defal euh, bu bu defee. Euh, suñu sëriñ ñi nga xam ne mu nekk fi mu def promenade bi def fa ay centre de cueil def ay salle def fa ay études loolu lépp Tivaouane bi la ko defal parce que ñun la waroon loolu yëpp Macky Sall defal ñu ko moo tax population Tivaouane amuñu lu ñu fayee Macky Sall lu takku topp ci ginnaawam jox ko une victoire éclatante surtout 100 pour parce que élection yi passé on était prêt à de 72 pour cent xanaa 100 pour cent la bëgg te xam naa dinañ ko am parce que euh, Cheikh Tidiane Diouf bi nga xam ni moo fi nekkaloon réew mi ñëw di ci ñun di jàppale euh, ñeneen ñi PDS ñëpp ñëw nañu Tivaouane fi mu nekk nii mën nañu wax ne opposition amu fi opposition amu fi parce que li fi nekk mooy ñenn ñoo xam ne ñëpp ils se sont rangés derrière le président Macky pour l'accompagner pour que euh, pour que mu réussir euh, le PSE pour que mu développer Sénégal appel may lancé mooy que na ñëpp na Tivaouane yëpp génn won ni président Macky Sall du ñu gën a gore parce que teraanga teraanga koy fay comme di ko sëriñ bi waxee rek teral na alaaji Malick alaaji Malick dina ko teral mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk alaaji Malick te gëm ko il faut ñu génn massivement maa ngi woote population bi ñu génn massivement teeru président Macky Sall ñaari yoon ñaari yoon teeru ko le 11 teeru ko le 19 parce que c'est une chance dëkk yi ko am bariwul ah mu fi ñëw ñaari yoon ñu war a génn massivement teeru ko parce que président Macky Sall jar na ko lim ñu ji fay rek teraanga teraanga koy fay dinañ ko teeru nag dinañ ko teeru population bi dañ ko génn teeru ko muy muy muy ñun ñi waa APR di ñi ànd ak Diop ñi ànd ak euh, Cheikh Tidiane Diouf ñëpp responsable yëpp. réunir nañu ñëpp benn bopp lañ def pour teeru président Macky Sall xam ni Macky Sall rek moo soxla élection yi di ñëw Macky rek moo soxla ñun ñëpp pare nañu pour accompagner ko pour que Tivaouane au mu am fi 100 pour parce que li mu fi def jar na 100 pour di sant yàlla rek sant yàlla di euh, sant yàlla bu baax ndax tey jii bis bu rëy la bis bi lu ko waral. Euh, dañu déjiyee sunu frère Dieng si Mbengue le premier magistrat bi nga xam ne ni moo ilif Tiwaawan benn coupe mu am lu rëy lum ci def mooy jël ko dippee ko Ablaye Sy Ablaye Sy nag buñ ko tuddee Tiwaawan ñëpp seen xol dina tooy man mii ci ñi ko njëkk porte estime laa bokk donc mu boobu loolu moo ma gën a neex ci affaire donc ñu ko koy yéene ñu gis tey jii

ngeen ñëwoon ma di ma ko wax ma wax ko ko suñu jógee dinañ ci waxtaan lépp luñ ci mën a taxaw ñu taxaw ci pour yàlla defal ko parce que ñu mënul sa tàqali ko ànd rek moo leen war léegi laa dem gis yaayam ak papaam ñu wax wax doo yaram yaayam sama bàjjan la papaam ni may yow sa papa sa sa nijaay laa te loolu moo am donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay lii lépp mission la boo xam ne ni yàlla ñëw na teg ko suñu loxo nan rafetal soow mi te duggee ko marché ku ne la nga war a def nga def ko ku mën a dimbali sa morom nga dimbali ko parce que kenn du jël sa cëru morom ku ne la la yàlla yéene yéene na la ko ba pare allah kulli aal dañ ci ko donc na nga fa teg soo mi man je suis ouvert à toute discussion à à l'endroit de faire avancer les projets qui sont avancés.